loolu li mu la ce qui veut dire que mën na ni parce que dama gis sànq ministre de l'intérieur di ko wax nan dafa dem Arabie Saoudite gis fa benn genre musée boo xam ni musée islamique la la fa nekk yéeme mu demander roi bi pour ñu defal ko musée bu mel noonu ci Sénégal ndax mais Sénégal am na leneen lu mu tal lu dul musée hmm? yonent bi li ñuy dunde ci moom duñ ko jaar ci musée ndax li xew nii yonent bi bi ko Maodo di sonne sëriñ Touba di ko sonne mais boobu ñoom xamuñu woon luy musée seen yitte rek ak seen taxawaay lañu def ba nit ñi yegg fi ñu yegg tey waaw ba tax na kon nag bu ñu bëggee nax nit ñi di ko jaar fii wax yu kenn xamul doxul doxul moo tax jël naa ay disposition euh, font baaxul fontu baaxul parce que loolu Mimi Mimi Touré wax wax ni bu ñu accepté candidature Amadou Ba booy boo ñu jàpp nañu troisième mandat bu Macky Sall elle a parfaitement raison elle tax na duggaguma woon ci biir yëf yi mais bay boo ngeen pare waaw waaw parce que fortu baaxul on en a assez waaw pare leen daaw sëriñ si fii yëpp lu ñu jàng jàng naa ko waaw te ëpp ñu may taalibe nag waaw bu ko defee kon nag bu subaa dinaa leen wax ñun fi ñu jëm sur le plan politique ak nan la ñuy pare sunu élection ak nag nan la ñuy ñafantee ma wax leen ko waaw ngeen baal ma du ñàkk teggin du dara waaw du ñàkk teggin du dara dafay am koo xam ne bu yeggee fenn fi waxal ak moom ci dimension bi nga mën a waxee ak moom waaw ndax loolu rek la mën dégg waaw bu ko defee kon nag nañu organiser wu